sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné wu ba noppi ba sa cloche de notification bi lee ngir mën a jot suñu vidéo mbokk internet yu TNM TV de près on se comprend mieux avec cette chaîne de télévision cette web TV Euh, qui s'est installé donc euh, ce millier médiatique noonu rek lañ leen di euh, nuyoo mbokk internautes yi nga xamante ne saa su ne yéen a ñuy teewlu ñu leen di andil ay xibaar yu wér wóor rawatina nag ñi réew mi tëddee jamono ji waaye seen émission one by one ngeen gëjët ko gis ci biir chaîne dikkaat na andi leen nag lu bees tàkk waaye tamit invité boo xamante ni bu waxee rek ñëpp daal di teewlu déglu ay kàddum ndax am solo gi mu am solo waaye tamit njëriñ bi nga xamante ne nit ki dina ko si jëlee ginnaaw si bu mu ko teewloo non rek la koy euh, dal di nuyoo mom cheikh bi cheikh choro mbake euh, diko nuyo nuyu dalal diko sargal fi ci TNM TV bismillah cheikh bi. Euh, cheikh ma ngi lay fay di nuyo aduna bi yep di jiital ci nuyo ak cheikh bi cheikh mamadou muntaha diko ñaanal sama borom yagal ko fi lol te wér di ñaanal kilifa diine yep di am mbekté nak ak ñoo tontu ci invitation bi di ñaan yalla rek ban fexe du ñi xeebe. mu ngoog ñu nuyu rek suñu kilifa diine yi nga xamante ne saa su ne ñu ñuy ñaanal nekk suñuy wet ñu gunge si lépp loo xamante ni njëriñal réew mi la dañuy dugg rek ci waxtaan bi ndax question d'actualité euh, rek dafa am solo jamono ji ni réew mi tëddee xanaa rek euh, ma njëkk la laaj rek en tant que député noo jàngatee jamono ji réew mi waaw xam naa Sénégal moom jamono ji wax ci dina xaw a lool ndax boo ko dee xool day mel ni ci luy baax la foo dugal mu lakk la ci tension ci climat social bi mm-hmm. ndax bu fekkente ni ñun borom kër yi mm-hmm. gis nañ ni njëg yi ni muy yokku jéggi na dayoo lool mm-hmm. beneen bi ci toppaat tamit gis nga télé bi li fi xew fan yi yëpp beneen bi ci toppaat tamit gis nga climat politique bi ni mel amul kenn koo xam ne danga nga ci réew mi boo nelawee di yàndoor la kon jàpp naa ne def Sénégal def ab taxaw seetlu jamono ji gis na difficile lool yéen yéen ñi nekk jamono ji ci assemblée nationale ah foofu nga xam ne mooy pencum ndaw réew ma ñu daal leen tabb yees ngeen ñëw ak seen groupe parlementaire euh, tey euh, toogu toogaanu bi foofu noonu ca assemblée nationale ndax gis nañ xaw na am pëccëxu tuuti euh, ci tàmbali bi ba ngeen dem ci vote de budget yi ak yooyu nan ngeen na ngeen loolu. toogaanu bi moom yomb na ci ñun. bu dee ñun député opposant bi. ndax it dafa am luñ campagne ne dañuy wax Sénégalais yi ñu fexe ba député opposan bi nekk fi majorité. boobaa la woon dina woon ni ñëpp xam nañ ne loolu Sénégal yi fekk si nañ ci. mais nag Macky Sall tàmbugum tàmbu sàcc ci élection tax na te ji ñu naan 83 député 83 député mais ñëpp xam nañ ne élection yi demeewul noonu. mais teewul li ñuy ñàkk majorité ñàkk majorité ku ci nekk gis na taxawaayu opposant bi ci assemblée nationale. donte bit yi ñu fi indi yëpp voté nañ ko mais débat bi ku ci nekk xam na ne ren moom sensé na yàlla di nga xam ne assemblée nationale. bii am muy quatorzième législature bi wuti naa yeneen assemblée fi daan jaar. yooyu nag dara wërlu ko lu dul Sénégal yi am guñ am yaakaar ci coalition Yewwi Askan Wi. am ko ci président Ousmane Sonko. ndax ñëpp new ñu waxoon na Sénégal yëpp war ñu joxe majorité dinañ wàññi dund ki ñu ne naan na koy defee ndax ñëpp xam nañ ne assemblée nationale fa dañu wote loi yi. ministres yëpp dañ faa jaar. ñu def débat seen bit doon te ñun 14e décidrateur bi woote defuñ orientation budgétaire mais budget bi ñun ñoo ko woote 13e décidrateur bi ñoo def orientation budgétaire kon jàpp naa ne assemblée nationale bi moom la ñu waroon def nañ ko ñun député opposant bi taxawaay ba ñu waroon am nañ ko fa. Mm-hmm. Eh, dugg si bi ak euh, noonu nga xamante ne muy doon une première est-ce que jàppoon nga ne tey euh, ñëwoon assemblée lu yomboon la ci yow. waaw pour euh, xam nga àddina moom lu yomb amu fi. Mm-hmm. te ñun tamit duñ bëgg lu yomb. tout le mm-hmm. temps rek dañuy dina ci lu jafe. mais nag bu ma nee la yomboon na mooy waa Touba comment comprendre nañ projet bi. xam nañ li leen changement jar jaral. jaral beneen bi ci toppaat tamit tubaab mooy seul dëkk boo xamante ni Macky mu mosu faa loolu moom gone ko am juróom-ñaari at sax. boo ko laajoon xam na ko xam na ko. Mhm. waaw ñun ñooy dëkk boo xamante ni teel nañoo xam Macky Sall fi mu jëmee réew mi référendum bi Sénégal yëpp lañ ko woote fii beeg noonu. Sénégal yëpp a woote fii ba mu des Touba. kon jàpp naa ne liste boo xamante ni Touba dafay compétir Macky Sall perte ko loolu day mel ni nga ne Sëñ Touba murit la du bett kenn mais nag bu fekkante ne xawoon naa difficile mooy état bi la mu fa xëppoon ci xaalis mm-hmm. la mu fa def def ko benn dëkk waaw bépp ministre bu Macky Sall am dugal nga sa loxo ci élection yi Touba donte dëkkoo fa. gisoon nañ Antoine Diome ak saagu ah, xaalis. man nga de Antoine mais ministre yëpp rek <laughs> ba ci directeur Sonacos bi sax nga xam Darou Mouti la rek au lieu que mu dem tali Darou Mouti ñëw na Touba am fa ay boyam mm-hmm. kon jàpp naa ne Touba moom. Macky Sall gañu woon 5 députés yi ak ku ko rey lay mën a bañ na ko ba élection yi ci pleine de campagne def na ñaari tegu xeer yoo xam ne ay route la mooy bi su ma jumal sa kama rawaan bi fa beneen route bi mooy route daaru daaru daaru daaru Karim bi hmm. pour ne bu ma gañee dinaa leen ko tali ñu mois lay diir te bi élection dara kon jàpp naa ne élection yi li mu ko jaraloon Touba ñun dañoo mujjoon sax waaw mais ñun xamoon nañ ne lu mu fa mën a xëpp ci xaalis da hmm. nañ waa dañuy doxe xam nañu waa Touba seen détermination ak seen engagement. Mm-hmm. kon ni mu demee moom vraiment bettu xam naa liggéeyu assemblée bi ak euh, ni ni mel daan ci ñëwaat ak budget bi nga xamante ne 6000 milliards la waaye yéen opposition bi ngeen jàpp ni euh, vraiment budget boobu li si ëpp wàllu leb la xaalis sénégalais daf ko leb maanaam Sénégal tey euh, booy xool ci wàllu leb budget bi da ciy ëpp lool. xam nga ñun dañoo préféré voter contre. Mm-hmm. te fi ñu ko tegit leer na. Mm-hmm. te jàpp ne ni budget bi sincère ndax euh, li njëkk euh, demandoon pour ñu def ko mooy indi ñu loi mhm. ratification te gis nañ ne bi ñu leen sàkkoo pour loolu ñu indi ko ñoom joxuñu ko kon mënuñoo woote bitse boo xamante ni bitse ba ko jiitu xamul fan lañ ko dugal moo waral contre bitse bi amul benn ministère bu fa ñëw bañ woteel sa bitse bu ci lu ministère des forces armées te voté wuñ ko dañ cee nootar ndax xam nañ ne armée daa sensible te li ci laal daa bëri mais bitse yi ci des yëpp dañ ko contre mhm. ndax jàpp nañ ne bitse bi sincère te lépp lu ñu ci doon moytu it gis nañ ndax euh, plénière jeex na rapport cour des comptes bi door génn ci ni ñu seere woon xaalisu Covid bi. Hmm, xam naa dinañ ci ñëw ndax ñëpp xam nañ ne bi ñuy nekk ci plénière de Covid bi hmm. ñu nekk ci Covid bi ñu supprimer assemblée nationale assemblée nationale amatul. doxatul ne dépassé nañ ca plus de 1000 yoo xam ne liquide la. ñu génn benn rapport ne xaalis boobu dañ koo détourné ñun kat bu ñu nekkee ensemble national woote wuñu bitse bi am nañu région ci kaw Sénégal yi laa ji samp kon bu fekkente ni woote wuñu bitse bi ñun duñ ci am du may suñu borom ndax jàpp nañ ne bitse ko jiit ni ñu ko la ñu saasaaxewaat bitse bi rek voilà ñëw rek ci actualité euh, maa la ko doon dunj sànq ci série d'arrestation yi nga xamante ne maanaam jàpp gi bëri na ci Sénégal euh, tension sociale bi foo ko natt weesu na ko euh, bisi mujj rek moom mooy Mortala Gueye ah di artiste rappeur waaye tamit di activiste ci li nga xamante ne noonu la réew mi di doxee mu gis nii jaaduwul euh, fan yee ñu génn mu daal di def live bu daanaka euh, juróomi fan rek ci ay ginnaaw ñu gis ni dañ koo teg loxo jàpp gi euh, jaar na yoon ci yow. xam nga boo boo ne jàpp gi bari na rek day mel daa am ñeneen ñuy jàpp. Mhm. mais da war a wax niñ sëngalee parti Pastef jekki na dayoo ndax kaso yi li muy fees fees gisoo fi benn parti bu ñu jàpp wakar kon ñu jàpp ñëpp ñu jege président Ousmane Sonko la. Mhm. bokk ci parti président Ousmane Sonko loolu nag. day day day day day day continuer Macky Sall day day firndeel Macky Sall en gum en passif ak bañ gum bañ président Ousmane Sonko ba tax na képp ku koy seeral lu baax dañuy jëm a créer dossier même ñi ñu ci jàpp tamit ñi ngi saboté seen pneu oto ñii ñu ngi leen menace de mort ñii amatuñu train de vie familial bu baax kon jàpp naa ne ñun moom amul kenn koo xamante ni yow bokk nga passif nekk ci sécurité bërki démb sax damay wax sama benn yaa war di wax ndax nga immunité parlementaire ma ne ko déedéet unité parlementaire moom ni ko sama benn. waaw fi mu toll nii a bu sama benn xarit waxee naa moom gerte caaf gën jigéen dafa yéeme ndax ñaari député yi ah, Massata ak Mamadou ndax seet ñaari collègue député bi ak Mamadou Niang di di di wëlbat di mm. mais kon Sénégal moom bokk fi Pastef day mel ne crime mm-hmm. kon bëgguma ñuy posé question ne jàpp yu bari na. Mm-hmm. dañoo war ni ñu sëngalee waa Pastef bëri mm-hmm. en cas de mortalité day fekk si ñuy jàppoon rek ndax ñuy jàpp amul kenn kuñ ci créer dossier dañ lay jàpp ba pare door a wut duñ teg sa ndodd ndax Mor Talla Gueye sénégalais. rëyul nit sàccul fenul violé wul doomi jàmbur. lu tax ñu koy jàpp di koy yebal contre sa gendarmerie boo xam ne amul convocation. Ah, buñ ko convocation ko convoqué mu dem wuy ah. kon ñun amuñ benn raison dem këram ak ah. gendarmerie yoo xamante ne day mel dañuy jëli benn bandi boo xam ne reykatu nit la d'abord loolu dañu njëkk a ñaaw ñu koy jëlee awakam laaj na leen muy maître Kabou lu mu def ñu ne ko boo ñëwee dinañ ko ko notifié. kon léegi fii jàpp yi dañoo benn léegi bu ñu la jàppee ak euh, li nga xamante ne dossier bu ñu la jàppee maanaam du bokk daal day wute. Ah, comme ni ko professeur Cheikh Omar Diagne wax jàpp nit ba pare door a door a wut lu ñu teg ci ndoddam am nañ koo xamante ni Abdou Sylla lañ ko wooye. Mm-hmm. ñu gën ko mu tudd Abdou Fall ñu ko wooye Abdou Sylla dëkk Touba na ci kaso bi 7 mois ba léegi procureur mosu koo déglu amagul dossier te normalement ba mu defee 6 mois ci prison bi rek dañ ko waroon a bàyyi automatiquement ndax amagul dossier mais ba léegi teewul ma nga nekk ci kon kon jàpp Mor Talla Gueye day fekk daal li may faral di wax a jëlee ndax Macky Sall moom même bu libéré woon tey ji ñeneen bu subaa dina wutaat ñeneen ñu jàpp moom nekk Sénégal gi Sénégal goo xam ne amul waa Pastef yi tax muy def loolu bu xamoon kaso di def loolu ndax bi ko fi koo fekkee 2008 2009 ñëpp xam nañ ne da doon jooy dem ci alaaj baara di sàkku ndimbal kon tey ji ñàkk xam kaso moo tax tey ji muy foye kaso mais bu ko xamoon dëgg-dëgg doo ko foye mais li olof di wax rek saan wuy dem di del si moom xooku dem doy na ci ndax lii muy leble bu soobee yàlla des na ko fay ci diir bu gàtt. mu ngoog ñu jàll ci beneen actualité bi euh, muy bi nga xamante nag moo soxal président parti Pastef. Euh, te nga bokk ci muy Ousmane Sonko gis nañ na euh, procès bi nga xamante ne daal nañ koy renvoyé foofu ca chambre criminelle euh, te ki juge bi di Maham Diallo moo ko def waaye dafa mel ni ni ma la déggee fan yi ci média yi ngay wax dafa mel ni yow njortoon nga war a xamoon nga ni Maham jàll noonu lay doxalee. waaw xam nga du ma ne njortoon naa ko mais dama ci amoon yaakaar. Mhm. ndax man dama gëm ne dossier bi ñuy woowee dossier Sonko Adji Sarr siis bu sérieux du jël. moo tax bi ndem si yàlla sàmm sàll faatoo di ko ñaanal yàlla suñu borom xarab ko ci àjjana yi gën a kawe. Mm. toog nañu lu mat un an di mm-hmm. siis bu ñu ko jox mënuñu ko am. du jàngeen dañoo siis bu ñu ko bu bu a def li ñu bëgg ñoom moom la ñu moo tax man bi ñu ko joxee sàmba bi ñu ko joxee euh, cuuj boobu muy maa xam jàll automatiquement xamoon naa da koy ram. déet waaye ah, dañ ko dañ koy duñ tere loolu. non automatiquement xamoon naa da koy ram waaye projet. Mm-hmm. Ah, man loolu laa loolu moo nekkoon sama xel. Mm-hmm. Euh, Sénégal te jamono jox na ma dëgg ndax boo xoolee moom fi mu jaar ak ngay dégg ñu far ba Ngom moo tax ñu ñu ñu def ko. doyen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. di nga xam ne kii ndax li gën a doy waar ci ci ci Macky Sall ni muy tànnee Sisi mooy day xool ku bokk ci xeetam mu lay def. mu mu mu waaw loolu tam wax nañ ko ci lu bëri. bi mbir mi amee ba tey nga xam ne Sénégal fi mu jëm ku am gis-gis bu sax rek di xam ne ci guerre civile la Macky Sall jëmee réew te loolu Abdoulaye Wade waxoon nañu ne woon na kii boo leen ko faree dina indi affaire xeet ci ñëpp ñu ngi fàttaliku te tey lépp lu ñu Ablaye Wade mosoon wax ci Macky Sall gis nañ ko li ñaan yàlla rek mooy loolu Ablaye Wade waxoon bañ a nekk dëkk mais gis te ko. ndax tey Ahmed si lañ lañ leen tàbb ndax ñu war moom moom lañ war a dénk pour bu ñu dem projet donte man gëw ma war nañu dem projet ndax man dama gëm ne patré yi buñu xolé ba dossier bi ñu yobbu ko projet ñu naan Ousmane Sonko taxana Aïssa taxana moy ñun bay woon ñu xam ne dara ci Sénégal ndax man dama japp ne Ousmane Sonko amutul sens muy gën di wax Sénégalais da demb def nako mais gis nga ni du jur jar du jur dara wala euh sëñ bi man lima gëm moy Ousmane wàccoo na ak ñun dëgg la di mo ron def lepp def nako ñak na liggéey ngir Sénégal amutul terrain de vie familial bu baax ngir Sénégal tay ji ay doom mag jëm rek mu nekk ño xam ño man ño tollu wa ila li ma mag bari bëriwul mhm buñu génné ci seen kër ñu ànd seen bàyyi violer loolu lepp Sénégal moko jar tay tey na Sénégal bu ko jar est ce que Sénégal tamit Ousmane Sonko jar na leen dinañ ko seeraat ñom ñukay sacrifier sacrifié moy question ndax li du dossier du dossier dara li politique la mbirum politique mo koy safar kon ñun ñoo wara xol affaire lan lañu jaral ñu wone ko ci sur la terre kon bëss japp nga ni bëss bu ñu jappé dat pour procès boobu non président Ousmane Sonko bu passif waruñu ko bàyyi mu génn kër. xam man la engagé man lay wax. Ah. moy man suma romor ba naan déw ma procès. waxtaanu ma ceeg moom waxtaanu ma ceeg kenn ci parti bi mais xam dafa bokk a ñaar moo koy ndax dañoo am ku mbokk ku naan Khalifa Sall di Sénégal la dëkk ci réew bi bi eggee moo tax sis bi renvoyé wut ñu dem procès mooy bi ma indil ne dafa viol nit loolu viol newu léegi nag certificat médical bi nga xamante ni moo ne ci dossier Adji Sarr Sonko bi Alfousseyni Gaye def ko nee na waxul fee ni daf ca bën na soixante-douze heures yi ñu génn ndaw séqu ca góor dara seere yi ñu dugal ci biir biir doyen de sis yëpp ñu laaj leen ñu ne lii dara amu ci lépp ay complot kon jàpp naa ne bu fekkonte ni dañoo war a Sénégal réew mu sérée lañ nekk dañuy def noolee ba pare ubbiwaat beneen procédure mooy topp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir complot bi loolu lépp nag bu amul ñun ñu nekk fii di dugg ci ay détails di jooy mel na jigéen loolu damaa jàpp ne ñun patriote yi ñoo xamul suñu rôle ndax Macky Sall gat sa gat sa la xam ni nga koy séen tàppet bu bon la te événement marché yi firndeel na ko kilifa yi diini ñi ñu yónni woon ñu dem ci moom bi eggee solul yére yu baax dara ko jooy dafa nekk woon naan nañu dimbale xale yi du génn suba bu ñu génn rek lépp lu ñu bëgg mën dinaa ko nangu kon jàpp naa ne la fi nekkoon moo fi nekkaat Macky Sall Firawna moo ko ëppoon ay ngànnaay ëppoon ko doole Ben Ali moo ko ëppoon ay ngànnaay ëpp ko doole kon patriote yi du waruñu fee nekk sax naan Macky Sall daa kon ñun il ñu def naa ko déedéet li mu yor lépp ñaar lañ mën a def maanaam li mu yor lenn la mën a def ci nit mooy nga nay mo munta ñewa ñew bu wess rey te gisu aduna bu koy dox ñu ndikki ñaari bammel la ko koo gis muy dox aduna àdduna benn bàmmeel la te bu la ray yag yag dina la fex si hmm. bu la tëjee kaso yag yag dina la bay kon ñaar yooyu waruñ ci ragal dara kon mbir mi dañu wara jël suñu bakkan bañu nek ay wax fa hmm. ñu naan Macky da daa préparé ndax li mbirum politique du mbirum yoon hmm. Sénégal yépp xam nañ ne li du mbirum politique du mbirum yoon mbirum politique politique nag réponse politique moo koy saafara moy ñu tew tok déglu leader bi fu mu ñu orienté ñu jëm fa ndax mom xamna na jëm. Mm. mais serigne ci yi nga xamanteni interpeller interpellé na leen démb ba mu wax li nga xamanteni moy juroom ñaari wër tok na ko ngir bëgg gis euh, Cheikh Mouhamadou muntaha mbake lool dang koy deggal loolu. xam nga lool man duma ci dugg. Mm. ndax sun serigne dañ leen ñaan yàlla sun borom yagal leen fi. Mm. réew mi ben responsable mo fi am ci li xew lepp muy président Macky Sall ndax mom ni muy jëfëndiko kilifa diine ak ñun ni ñu kilifa diine du ben ñun kilifa diine dañ leen a wet fonk leen président Ousmane Sow bu mu dalé politique ba légui mosoo gis mu dem ci ak ëttu kilifa diine di fa wax mbirum politique. wax na ko démb. waaw ah. ndax moom da leen a respecté. mosoo gis mu mu situation bi difficile ba mu dem ci karamu kilifa diine di làppatu kon moom respecté na leen événement marché yi li muy tar tar tar sañ mun taxaw bi mu fa yónnee ndaw ci moom ak ci waa MDD keroog jotaay bi tàng na lool yàlla dogal na xam naa ci lu bëri bi ndaw li ñuy exposé li sañ mun taxaw bëgg. bëri nañu fa nekkoon ñoo xam ne d'accorduñ ci woon loolu maa la jox révélation bi. ndax dañ ne woon affaire bi muy démarré kilifa diine fan lañ nekkoon. Hmm. kon mënuñoo bàyyi ba ay nangam bakkan jot ñu ñëw di ñaan njëkk. président Ousmane Sonko moo neen déedéet moom mii Serigne Mountakha bu ñu woola woon ñun dinañ dagg li ñu def fekk si ko Touba lu ñu sant ñu def ko kon lim ñu ñaan nañ ko ko daal di woo ñoom Cheikh Tidiane Dièye ne leen bi ngeen jàppoon na ngeen ko arrêté. Hmm. ñoom ñu bàyyi ko kon kooku respecté na kilifa diine Cheikh Mahamadou Mountakha yemu ne leen bind leen li ngeen soxla ci kilifa réew mi jox ma ko man dinaa ko jox sëñ Bass Porokhane teg ci ne sëñ Mountakha ne ne ñaari parti ngeen boo leen ko may di leen sant di leen gërëm ñi ko may dina taxaw ci média bi wax ne ñi may ko fukki fukki fukki fukki laaj yi ñu laajoon jébbal ko si Muntaxa lan la ci Macky Sall def. waaw jàpp nañ ñi defu ci dara comme. pour mu bàyyi détenu politique yéen jàppoon sax waa MDD dañoo mujj def ab manifestation bu mag place de l'Obélisque yi keroog bi ñuy def manifestation bi ci ngay dégg ñu bàyyi na ñoom kilifa bàyyi na ñoom diw kon bàyyiwu leen ngir digal kon japp na mak salam Sall moom mu sa respecté kilifa diine mhm. te kaw mbay Touré talib seigne Muntaxa raw bayam yaaka seigne Sëñ japp nañ ko seigne Muntaxa déplacer wu Dakar ba Touba ba Dakar seeti ko ci kasso bi teewul Macky Sall boo lëpp noonu door ci kasso kari wad japp nañ ko seigne Sidi Muxtaar ñaan ko fi njëkk mu bañ kon mom respecté wu kilifa dini yi kon bugguma sax combat bi ñu tuddu dugal kilifa dini ñun dal combat bi ci ñun lay aju ñun lay neex mak Sall likiti Ousmane Sonko ñun lay bañ neex du ko liquide noonu daal ngeen ko gisee waaw kon boog euh, ñu jàpp loolu euh, téléspectateurs yu TNM TV ba tey yéen a ngi seen émission one by one ñu daal di rek wéyale ak laaj yi ak euh, Cheikh Thioro Mbacké noonu nag dañuy dugg ci l'accident yi nga xamante ne réew mi gis nañ ni nag bëri na lool ñii ne mystique la ñii ne waa ji moo nekk ci ginnaaw ñii ne chauffeur si la Mansour Faye génn barki démb wax ni jamono ji ñi di transporteur bu yow ñu tënku si ñaar fukki mesure ak ñett yi nga xamante ne daal ñu koy teg yow sa xalaat ci mbir kooku tudd moom bu doon ci réew mu si réew lañ nekk heure bi du fi nekk sax di nekk ni de transport ba kon na di wax ndax benn reew na xamul wax it dof na ñett yëpp boole na ko beneen bi ju tabaat ab sëy sax boo koy takk da nga koy xool comme ni ma dégg Alassane doy wax Mansour Faye moom ñëpp xam nañ jigul transport Sénégal dama jàpp ne Macky Sall bu fekkante ne am na mi ngi déglu senegal yi li mu defoon ci Abdoulaye Diouf saar wane ci rigueur wan ne moom moo yor décision bi. moom kay balaa ngoon sax lañ ko wàccee moom. Abdoulaye Diouf Sarr bi muy préparé wu pour dem seeti ñi lakk ci hôpital Tivaouane. Mm-hmm, maa nga foofu ci yoon wi la déggee ñu ne dàq nañ ko. Mm-hmm. Mansour Faye mi nga xam ne nag diisu rey na ci soixante-et-un personnes ndax mooy responsable moo taxaw ñëpp di ko dégg mu ne 49 pour cent ci oto yi daw amul visite technique oto buy daw amul visite technique ñaata montage la romb. waaw ci ay takk der ki ci ay takk der loolu kan moo ba pare tegaat ci ne. benn centre de visite ni moo am ci Sénégal bu normal muy dakaar yi ci des yëpp benn amu fi loolu kan mooy responsable bi kon lii xew kan moo ko mën a génn responsable Mansour Faye kon jàpp naa ne accident yi am dara wërlu ko lu dul nguur gi dañoo nguur gu démissionné lañ am nguur goo xam li mu tax moom mooy seere ay question politique tey ji bu manifestation waree am da ngay gis li ñuy xëpp ci takk der ci biir Dakar ak lim leen jaral pour ñu protester ay billets français mm-hmm. tey ji da nga sa oto jógee Touba gi di ñëw Dakar ab montage arrêté la benn oto boo xam ne da lay romb du taal ay signal dansé du am dara ba pare xujale xujale xujale ñu ñu bàyyi ñoo ñu téye la de bàyyi oto boobu mu jàll. ngi si daal loolu jaaduwul kon jàpp naa loolu jaaduwul kon daal jàpp naa mbir mi war nañ ko war def mbir mu sérieux jox ko ñu ko xam ndax Mansour moom ministère bu mu jaar def na fa ay dégâts waaw te li day signifier li day dëggal li Sénégalais yi di wax naan euh, Macky Sall yorul nguur gi mais Marème moo yor nguur gi ndax lii jig Mansour. jigul kenn ci réew waaw mu ngoog xam naa dinañ gën a yaatal ak eh, yeneen i pàcc sax mais dañuy dugg rek directement eh, ci luy jur coow jamono ji ci réew mi muy Cheikh Yérim sekk Cheikh Yérim Seck ah déet bu ma bu ma nii déet Cheikh bi parce que Cheikh Yérim Seck fi mu toll nii eh, bës bi moo ko yor ak livre bi nga xamante ne daal ñu koy bind waaye mu am ci coow lu rëy mm. ay plainte yu rëy ay plainte yoo xamante ne tey jii nii dem na sax ba tey encore am na ku plant waat ci mbir mi. xam nga li sëñ Baye Diakhaté wax rek naan li xew ci li xew ci ji jamono bon mën na fukki yëf ak dañaa waxoon wax ju am solo ne xas ku la gën. Cheikh Yérim moom livre bi boo ko déglu day mel ni moom ñu ko gën rek lay xas mais setal koo xamante ni taqal koo xamante ni yàlla moo ko setal dafa xaw a jafe président Ousmane Sonko ku ne lañ mën a taqal ci réew bu des moom. te Cheikh Yérim nan lay mën a wax affaire viol di ci nekk à l'aise man daal loolu ni ma jaaxal dafa ëpp moom. waaw ndax moom mi si fàttali rek toogoon na ci euh, Télé Futurs Médias euh, wax ni mbirum viol maanaam moom munu cee wax ndax wàllu yoon sax dañ ko daanoon ci li ni mel. waaw xam nga xam nga mooy li ma la wax rek mooy nan lay mën a waxee ci mbirum góor a jigéen du ma ne viol sax mbirum góor a jigéen di ci nekk à l'aise bëgguma dugg ci yenn détails yi mais Sénégal yi am juróom-ñaari at sax xam nañ ne Yérim loolu feebaram. documentaire bi loo ci loo ci. loolu moom du du waaw loolu moom du débat xam nañ kon jàpp nga ne daal livre bi da koo bind nii rek ci ay non non livre bi man damaa gëm dañ koo dañ dañ koo commandé waaw ndax boo xoolee livre bi bi bi mu koy génne ak bi ñuy def renvoi de renvoi projet bi mhm. benn ak yi fi xew yépp mais da ngay xam ne seex Yérim moom ci lii la mas dox moom mooy mercenaire mu Yérim moom mooy nit koo xam ne boo ko fay xaalis loo ko sant ko defal mais ci jàngat bi mënut muñ ñàkk mënut muñ jigéen mhm. léegi nag moom li muy wax rek loolu moo ne moom ci lim wax ci lim wax eh, ci lim wax cheikh bi loolu graw na de eh, mo ay fena de dégg nga daris kamara wax nako xam nga bu de ñak bi mën naa ko firndeel daris kamara neena ko fay ma 500 millions mo defar la sa image de nga daris kamara lam ci tek bu de jigen bi mom lay xam ci ko xam dañ ko daan ci affaire fiol daan tribunal bi mu ñu sëyee pornographie ci bir tribunal bi ñu naan ko misal ñu nan nga doon def ndasu yu mu koy wax nga dig ay mbokam naan yirim daa waxtaan ak ndasu ba jubam moom ci seex ni nga ko deg dégg ko ci kenn kon nan lay mëna wax ci mbirum goor jigen ci nekk en l'aise man daal fit woowu moom a gën a jaaxal ci ndax bu doon ci bu doon ci Sénégal lañ nekk yërim ray dañ ko bu yàgg bu doon réew muy àtte wa Sénégal yërim dootul dund ray dañ ko kon nag jàpp naa ne nekk fii sax man lii ma wax ci yërim sax maa ngi ci jéggalu suñu borom ndax bëgguma ko war a jox importance sax jàpp naa ne sama gémmiñ gi waruma ko mel ne mais daal li ma koy wax mooy ndax ñetti fan yi li mu dégg lépp mënoon naa dund ba reetatu ko dégg muy muy lu muy tayit tayit tayit tayit liñ naan fu fu fu jàmm yenn faran fa rek ma nga fa xam lu waxul. Ousmane Sonko it mag ñi dañ ko bëgg. moo tax it ña bokkoon ak moom Gumba Géew nag ña bokkoon ak moom Louga ñëpp wax na dundam te loolu wax dëgg yàlla am xamu fa ay mbokkam nekk mais dootuñ génn ci réew te loolu moo ko teg boppam. ñi dara wóorul lu xas ko gën rek. Cheikh dem ci rapport Cour des comptes ñi daal di épinglé ñu bëri ci ay ministère waaye mi mel ni dafa am benn bërëb boo xam ne gars dañ ko fàtte muy senior Sonacos actuel. Euh, ndaw defoon na ci ab révélation muy euh, tudd Mouhamed jàll sorti boobu yow ñu gis ni euh, am na loo ci xam hmm? dañu koy baaxee rek Sonacos. xam nga maanaam lu fa ne. xam nga ci ay muxum. xam naa question bi moom dañ la ko yóbbante waaye. waaw non mais laaj la rek mbirum Sonacos moom wax ci dina dina xaw a du xaw a jafe. Mhm. ndax loo xamante ni société publique la Sénégal yëpp bokk. Mhm. bi yàlla dogalee it ministre bi yor wàllu agriculture ñëwee assemblée nationale commission. Mhm. ne woon naa ko kenn mënut a wax jafe-jafe ci wàllu mbay mi di def Sonacos. Aly Ngouille Ndiaye. te Sonacos problème bi dëgg-dëgg man ne woon naa ko Diagne Fadala. aw ma moom ma ko xaw ma. du bawal bawal. waaw xam naa daaru daaru <laughs> xam naa daaru daaru du bawal bawal mais nga jël société bu toll man ko dëggal ci kanamu Diagne Fadala boobu Diagne Fadala ngi toog ministre ma ne ko ndax tey jii li ñu giñ Macky Sall lu ko raw moo nekk Sonacos ci ay mbuxum damaa jënd ci ay mbuxum mais ci ci société boo xam ne affaire familiale la ko def. gestion familiale ma gestion clanique. ndax so Sonacos mënoo faa jënd benn doomu gerte te jaay doo ko ci Fallou Galass Diagne mënut a nekk c'est impossible. muy lu doy waar. muy lu doy waar bi muy door a ñëw sax mooy dafa daa bu la jaayee tonne bu ci nekk 1000 ton bu ci nekk war ci am 10 millions daa ubboon benn compte nga xam ne da koy weer si fee weer si ko fee mais xanaa ginnaaw yi rek gaa yi nandal mu sensé données yi. nga lépp da nga koy verser compte Sonacos ba pare nga jox xaalis liquide te loolu ñu jëflanteeg moom ñoo ñoo ko ñoo ko seer ñu amay preuve yëpp moo tax plainte Mohamed Diallo boobu ma xamaloon ko ne ko boo continuer di nga ci wax li xam la fu leer la ko teg tey yi moo waral ñu ngi ci ñu ngi ci nawet bi jeex na gerte gi nekk ci réew bi yëpp ñëpp xam nañ ne Sonacos du ci am benn doomu gerte lépp seen waay jot nañ ko ñun ñu xam nañ ci dara ndax état bu fixé prix de gerte 245 francs seen waay ñu ngi dem ba jënde 400 francs mhm. kon nan la Sonacos di amee gerte li gën a dansé fi ñu jëm mooy bu nawet bi tijjee jiw du am Sénégal loolu moo gën a dansé. te bëggoon naa nga ñëw sax sa expérience bi nga am ci wàllu mbay. waaw li gën a dansé wax ñu Sénégal tey jamono ji parce que président Macky Sall waxoon ni euh, Sénégal dafa échec ci wàllu boobu noonu. xam nga li gën li may wax li gën a li gën a a li gën a dansé mooy seen waaye ñu ngi jënd bay jënd jiw bi ndax état bi tey ji bu ñu fixé prix gerte bi 245 francs seen waaye ñu ngi jëndee 400 francs te ñooy fay transport fay lépp te dañuy ba tool yi di jënd gerte. tey jii doo dem siin mukk yor donte ay milliards nga yor doo dem ba di jënd te nga fay kat te moom léegi yëmuñ ca tey jii boo demee Touba gone yi ay manifestation yu mag a mag ndax sinuwaay yàq nañ marché bi. kon jàpp naa loolu état bu daw ay responsabilité la ñun waxuñ bu sinuwaay soxla nañ leen. mais nañ fexe ba li nga xamante dañ ko soxla ci gerte ñu mën ko wutal suñu bopp. mbay mi daal sooxee na ci Sénégal nga. loolu baykat yoo ko wax te ay feela yoo xam ne ñëpp gis nañ ko te jiw wi ñi koy jot duñ ay baykat jiw wi ñu ne seen bureau yi ñoo koy jot. waaw gisoon nañ Moustapha Cissé Lo. waxoon na waxoon na ko ci assemblée nationale. waxoon na ko jiw wi ñi koy jot duñ ay baykat. opérateur yi nga xamante ni ñoom lañ jox ñu seet ñu séddale jiw yi duñ am jiw xaalis lañu yor te loolu Sénégal yépp xam nañ ko. maanaam répété ko sax day mel ne ngay répété Fatiha ci julli dafa dafa dem ba Sénégal dañ koo miis bu ñu ne joxee boo nee na am nga ci opérateur économique bu tudd Abdou Khoudous mais nangami bëri bay gerte. Mm-hmm. bu egg Abdou Khoudous lim lay njëkk a mooy awma gerte. Mm-hmm. xaalis laa am jox la xaalis. tey. pratique yooyu moom Sénégal moom Sénégal. muy lu doy waar euh, cheikh bi ñu dem rek euh, ci laaj bu euh, wante mun naa wax ni ci mujj lay bokk sax sa complicité wala sa rapport ak président Ousmane Sonko ci bu passé ndax gis nañu jegeyantoo bi. xam naa loolu daal mooy complicité président Ousmane Sonko ak Sénégal yi bëgg dëgg yëpp. non man yow laa wax. ah <laughs> mooy complicité président Ousmane Sonko Sénégal yi bëgg dëgg yëpp. Mhm. ndax président Ousmane Sonko daal ñun dëgg la ñu moom. dëgg jooju ñu ànd ak moom heure bu ñu xëyee dañuy gis ne ci lay dox ci lay ci lay nekk yàlla dogal tamit ñun ñu bëgg ko moom mu bëgg ñu ndax ñun jàpp nañ ne bis du ñëw ba def politique moom it jàpp na ne bis du ñëw ba ñu def politique kon li ko dugal ci moo ñu ci politique. mooy bëgguñoo si daal réew mi di yàqu ñun it bëgguñoo si daal réew mi yàqu. moo tax may faral di wax ne fu mu ci politique fa laay dem ci politique naa ci ay morom ndax ñun li ñu àndee moom àndu dëgg la àndu nawlante kon mën nañ bañ xaar ci yow ay transhumance ak yoy dal daal euh, ñu ko xalaat mooy mo la muy ku neex àndal question boobu duma ci tato la ma Cheikh Abdou Barre dal waxon rek biñu gañee ba suur boobu mu dajale ñun ñep image yank andal ci internet nañu wat ne duñu war mo ne ko baat bobu mom ku koy tudd sax da nga ko xam motax nga diko ko tudd mais ñun sun juroom ñaari mam boko dajale won di lacc ku mos a war nit neewu ci waye nak war nañu bañ son mom mais ku mos a war nit bu neewu ci kon war moom mënuñ ko def ñëpp suñu der buñ ko bëggoon sax duñ ko mën. ci war ah, te nañ ne projet bu doon des benn nit ñun lay nekk. waaw mm-hmm. ah, te moom it gëm naa ne du trahir askan bi ndax tamit homme politique moom discours la ak parcours. Mm-hmm. waaw Sénégal nag malheureusement dañuy yem ci discours bi rek bàyyi parcours bi. mooy lu am solo ci ah. booy fal euh, njiit ñu laaj bu mujj bi rek ci euh, noonu rek laa lay wax ni euh, su ma doon laaj tey nombal tànk bi nga xamante ne am nga ko ak tam ci politique bi nga nekk mais gis nañ ni Cheikh Thioro Mbacké ñu ma daan àndal démb lay àndal tey. Ah, loolu moom mënuma cee tontu ndax tamit ñun moom yàlla dañoo dimbali ay donk rek mhm. nekk ay taalibe Sëñ rapport boobu noonu nan nga mën a def ba téye ko. maanaam loolu moom mënut a mënut a ci ñun la nekk. waaw di naan boo ki lay ki lay def bu neexee mu ñëw bu mettee mu daw koo koy am amul koo ñàkk ñàkkul ñun moom liñ gëm moom nit nit lañ ci xam. waaw bu nekkee bu passé nekk di nekk mala moo tax bu fekkee da ngay def boo amee ndaa toj ndaa du tax bëri ndaa moo tax tout ki nga xam démb duñ koy ki nga xam démb duñ ko yemale ki nga xam tey mukk ndax kooku la ñuy gën a ñeme di seqante moom yenn yi. moo tax tout le dañuy gis ñu daan àndal lu àndal te it loolu lu naturel la ci ñun te Touba it def fa mën a yombul. li tax mu li tax mu yom moy bo wote deug wa tuba ñu lay njëkk wisi deug si ku ko wootee ci réew tuba mo lay njëkk wisi da deug ba deug ko sos deug bañ kat la bo gisé président Ousmane Sonko projet wa tuba ñu gëna comprendre wa tuba wa bu mo né wa tuba nak lepp lu yaaka suñu tuba yaa ci biir boo ko dee deug yi mi gañ deug Mouride deug Mouride da koy gañe largement ben mi top jesperal bi Italie gis nga na koy gañee fiñ mu doon nii boo eggee ci kasso yi wa tuba ñu ci fess del manifestation yi waa Touba la ñu njëkk jàpp loolu nag dara wër na ko ku xam dëgg-dëgg mouridisme li ko fondé lu du répète tey jii bala ngaa woon a xam ne ñun bëgguñu Ousmane ko mooy mu changé doxali Idrissa Seck gis nga niñ ko niñ àndee moom 2019 jàpp na dafa ne ci dëgg gis nga tey jii Idrissa sekk moo ko xaja yem Touba am xaj doo dox ba gis ko ci mbedd Touba bureau de koo gañe waaw ab ba gis ko ci mbedd Touba fi mm-hmm. de moo ko xaja fa yem boo ko fa tuddoon tey jii mën na laa fekk fa yet duma la. mu ngoog cheikh bi tàggatoo Euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte nag ci laaj yi ak tontu yi. Mm-hmm. di profité ci occasion bi rek di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo faatu ci sow yi. Mm-hmm. ndax vraiment tiis la mag ci Sénégal. di ñaanal tamit ñi ne kaso yi. ndax vraiment. foofu du seen waaw foofu du seen place. Mm-hmm. ndax man yàlla dogal na dem naa fa lu matul ñeenti fan ci gannaaw rek. du ma ne visite naa ñëpp mais ñi ëpp visite naa leen. mais li ma gën a marqué ci ñoom au lieu que ñu naan la sama yaay nu mu def sama baay nu mu def. président Ousmane Sonko nu mu defar leen laaj ñoom ñëpp mbaa mi ngi ci jàmm boo leen xoolee ba ñu sacrifié ko ñun duñ nekk en ci kaso bi ñoom ñëpp même moom bi mu leen visité xatu mu jooy ci seen kanam donte Ousmane ku dëgër la ndax dina Ibrahima Diédhiou dana ko fajar bu ci nekk bu ma jullee ba pare ci biir prison bi dinaa la jàngal 41 yaasin Diédhiou. naam Diédhiou kooku moom xam nga ne yëgul ni moom te kaso la nekk. kon li may faral di wax rek Macky Sall man gëm naa gëm naa ne amul so loolu nag sama gëm-gëm ndax man yàlla dimbal na man maa ngi ci taraay maa ngi ci oto yi maa ngi ci xam naa fi Sénégalais yi toll ci président Ousmane Sonko billahi waxantuma yàlla xam na ko Ousmane Sonko da ko woon bu am solo ne ko xeex mën naa cee ñàkk ay don waaye yow dañ ci ñàkk Sonko barke sëñ Tuubaa boo ko songee dina jàkk nga ko te loolu waxantuma billahi waxantuma maanaam Macky Sall bu liggéey Ousmane Sonko mu ko di yor réew loolu c'est impossible mënut a nekk moo tax ma gëm ne amul arrangement te gëm xamul nit ñi fi leen projet bi toll bërki démb bi muy def point de presse démb permanence boo fekkoon ay mag ñu am 45 ans di jooy di jooy comme jigéen. waaw ah, loolu moom am naa ci ay écho di jooy comme jigéen. Mhm. kon moom amul arrangement. ndaw yu nekkoon ci suuf maanaam bu jàppee ne mhm. Ousmane ab politicien la rek dama koy faagagal kon ni ma daan faagalee politicien yi nax na boppam Ousmane mbirum yàlla la maanaam mbirum yàlla suñu borom la Ousmane Sonko mbirum yàlla suñu borom la. Mhm. dogalu yàlla nag boo bëgg boo kii da ngay nangu yéen di yàlla Moussa bi nga xamante ni mi nga dàq Firawna Firawna bi muy dàq yonent yàlla Moussa ñu dem ba du géej gi nga xam ne bu ñu dëppee dajanteeg ñeegi xam nga lan la yonent yàlla Moussa du ñu dàq. du ñu dàq. te Firawna ba mu ne dina ko dàq dafa dafa jaar puus géej gi patriote li ma leen wax mooy lu Macky Sall bëgg Ousmane Sonko du am loolu moom mën naa ko garanti Macky Sall li mu bëgg Ousmane Sonko du am te ñun fi ñu jëm dinañ fa yegg. kon boog ma nañ ko jàppee noonu mbokku internet yu TNM TV euh, du sumay kàddu yu Cheikh coro euh, Mbacké la moom lañ dalaloon fii tey euh, ci émission bii di one by one ci Total New Media de près on se comprend mieux noonu nag laay gërëmee partenaires yi saa su ne jeytu la qualité notre priorité ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu céréales jaayum ginaar ak lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu produit halieutique ñoom dinañ ci yëngu boo leen jokkoo ak ñoom rek daañu leen mën a gindi ci leer ñoom ñi nga xamante ni ay ndaw lañ ñoom it yëngu ci wàllu événement événementiel lépp loo xamante ni ay caméra yu mucc ayib ay drone itamit yor nañ ko ngir rek seen événement mën a taaru loolu nag di ngeen jokkoo ak ñoom itamit ñu mën a jëflante ak yéen ci anam yu mucc ayib noonu nag laay gërëmee tamit ñu jàpp ci liggéey ba mu yemb ci coordination bi nay meng waaye tamit Abdou Khoudos moom it jàpp na ci bu baax a baax waaye no tamit cadreur yi ku si mel ni euh, sama waaj yu Omar Diop waaye tamit Alassane taal ñoom it di leen jaajëfal baax baax ci wàllu réalisation réalisation bi nii la ñun la ak yéen TNM euh, ci kanam ak yeneen yi nga xamante ne mooy suñu programme bu leen zappé mukk jër ngeen jëf ba beneen yoon